telle conçu, telle elle est conçue, il n'y a pas euh, loi pour les pauvres, loi pour les riches. La loi s'applique à tout le monde. Mm. Lola dans un pays républicain et dans un pays démocratique, man lola gum. Bon, ay loi Maintenant si nous loi dafa am pour les riches ou dafa loi pour les pauvres, Man en tout cas, je ne dirais pas ça. Dans ma ni que loi Sénégal, la constitution du Sénégal, elle s'applique à tout le monde toutes mm. les couches catégories de couches confondues. Mm. man maintenant journalistes nous ñu les comme un détenu spécial voilà un patient spécial dans un hôpital quelconque Nous, sommes xam Nous, wax comme un citoyen sénégalais il est en danger Moi, les autorités responsabilité liberté provisoire nous ñu xol lu ñuy def pourtant ñom may nañu fi ay ñoom Bougazelli ay liberté provisoire ba légui ñu ngi né wér nañu ils continuent de vaquer à leurs occupations. mais est-ce que ces avocats amal une ay procédures à non mais bien sûr mais quand les avocats de Ousmane Sonko plaident ni que son état de santé va mal mais <laughs> attendre ces avocats là ñu plaident à ce que ñu may ko liberté provisoire. c'est évident L'état état dafay am moment fu muy toll du xaar les avocats de Ousmane Sonko parce que la vie de Ousmane Sonko est entre leurs mains. Hmm. donc bu demee bañu constater ni que Ousmane Sonko bide de ñu dem constater parce que dama xam ni que ci ñaa ci rafet njort buma am dama am rafet njort ni que état yegna Ousmane Sonko situation médicale actuellement yegna son son état de santé actuellement ci ñaaw ki ci rafet bu njot bobu la xam ni que état yegna sont Ousmane Sonko lu ko actuellement. moi ma japp ni que état mën libéré hmm. sous une euh, liberté provisoire. Hmm. parce que mën nako def. les autorités il est temps pour qu'ils ñu jël sen responsabilité il faut que ñu jël une responsabilité c'est pas le du ragal. Mm. wala lolu du du peut-être euh, combat bu perte non il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mm. il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ah. nous sauver le soldat la République sénégalaise. Mm. c'est pas Ousmane Sonko qu'on nous sauver en en accordant une liberté provisoire c'est pas Ousmane Sonko le a sauver nous sauver les institutions yu bëri. loolu man maa ko wax. alors bu ñu en Ousmane Sonko liberté provisoire actuellement nous sauver les têtes sont bëri sauver institutions yu bëri en commençant d'abord par le ministère le ministère de la justice en commençant même par ce ministère là. Hmm. par toutes les prisons les prisons au Sénégal par le ministre de la de le ministère de l'intérieur elle-même. Hmm. en terminant par le président de la PIMA Kessal à libérant Ousmane Sonko libéré na institution ay institution yu parce que il faut savoir prendre les devants musiba nit musu ko gis muy ñëw yalla kese mo xam amana le juge qui a décerné même euh, la notification de radiation de Ousmane Sonko aujourd'hui on parle que il est décédé amana bu xamone ni que 2023 bi ni lay décédé lolu même boko milliards milliards de du ko décerné parce que day sóoraale bàmmeelam moo Moi ma ne là. incident nit yalla mokoy koy gis mu ñew mais nit mënu ko gis mu ñew xam nit lan lay def savoir anticiper sur les choses hmm. il faut prendre les responsabilités et anticiper sur les choses alors c'est clair Arfan parce que nakul febar moy ray nit encore une fois ça mm, mm. aussi il faut le dire mm. nit mën tok nga jàpp ni feebar d'ailleurs euh, lui qu'on a dit le sous-préfet qu'il est mort malaise la ñuy wax waxuñu feebar ah malaise nit mën naa taxaw ni malaise dee nit mën des dee sans feebar nit mën febar, bay dugg ci coma mu wér dee nit yalla moko ko yore alors c'est clair Arfan c'est clair alors euh, mom ñu daal di jall batay tey si communiqué li nga bu procureur bi waaye tam les réactions euh, se poursuivent du côté bu ki nga xam modi Juan Branco murad nek euh, l'avocat à Ousmane Sonko Mourad ñu kay invité ko fa nga xam ko BBC léegi ci li nga jeudi bi ki nga xam nekk mu di xawaa nag dikkaan exactement si kaw euh, Ousmane Sonko mu daal jàpp ni jamono ji nag Ousmane Sonko est entre la vie et la mort loolu daal di xamle si benn entretien bi nga xam ni itam doon na ko daal di amal nag démb man ni ko nag ki nga xam nekk moo di euh, Juan Branco nee na malgré cela am na ñoo xam ni itam ñi ngi daal di remettre en question li nga xam nekk moo grève de faim bu Ousmane Sonko digganteeg du nak des maanaam saanu ko sewtas la daal di nekk exactement saanu ko réanimation hôpital principal bu euh, sa pavillon spécial mu ki nga xam nekk moo di Croix loolu daal exactement li nga xam ni itam moo koy di mettre du ñak itam ni dans quelques instants inshallah donc Juan euh, moom mi nga xam itam na ni Ousmane Sonko est entre la vie et la mort. alors aujourd'hui euh, ki n'a ramené que moo di Maître Clédor est-ce que duñu xaar parce que nee na euh, alerte na ba sonu dina xam nekk moo euh, kilifa yi sëguñu daal di gaw réagir si mbiru ki na xam nekk moo Ousmane Sonko est-ce que réaction du xaw trop tard euh, peut-être ba irréversible dal di am ci son cas manam l'irréparable loo xam ne kenn mënu ko réparer ti xam nga maître Ciré avocat Ousmane Sonko la. Hmm. moom loolu mooy cëram. moy hmm. manam mu alerter c'est-à-dire que il s'imprègne de la situation de Ousmane Sonko ba pare. Euh, euh, informer autorité yooyu wax len lan mo xew. Hmm. ci de santé de Ousmane Sonko lolu provisoire, hmm. maintenant autorité yi ñom ñoy jël ay engagement dogal. Hmm. def wala qu'il def parce que une compétence le ministre de la justice tay bu waxé ni que nañu libérer Ousmane Sonko sur euh, comment liberté provisoire tay tay tay tay def ko ah. def Mota le colonel yo, le colonel Diagne kan la bind bataaxal bi mais le ministre de la justice parce que Hamani, na ni moom mën jël ndogal libérer Ousmane Sonko parce que ici la justice sénégalaise. donc da nga jàpp ni colonel Diagne est son nii mi ngi. Euh, mais il lui met si ses responsabilités pour exiger sa libération. mais bien sûr Dans le jàpp ni mi ngi côté mais mais c'est ce qu'il a dit. c'est-à-dire que waouh ko officiellement mais lu bind c'est pour toi pour ça pour imprégner ce ministère-là de la situation de Ousmane Sonko parce que c'est grave, c'est carabineux. C'est à eux de prendre leurs responsabilités. Moi, il leur met devant la scène. Voilà le mot. Le colonel aujourd'hui, prison, il met ses autorités-là devant la scène. Ni que Ousmane Sonko, il est à vous de voir. À vous de voir. Vous faites que vous continuez de maintenir prison, bu leneen xewé ngeen xamni du man à vous de voir bu féké da ngeen de libérer ko yéen à vous de voir voilà ça communiqué en d'autres termes lool la bëgg wax lool la ko jangaté lool la bëgg xamal ministre de la justice parce que aujourd'hui la justice sénégalaise est émanant du ministère de la justice et ministère de la justice il fait partie du pouvoir politique Moi, on ne peut pas parler de la séparation de ces deux pouvoirs là mënul am même si vous faites que, verbalement oui, ñi dañ le pouvoir judiciaire est indépendant et autonome euh, le pouvoir exécutif depuis la depuis primaire ñun loolu la ñuy mm. la depuis primaire en réalité c'est pas c'est pas c'est faux loolu amul depuis le primaire voilà le système éducatif sénégalais actuellement vais mm. mm. profiter ça pour faire une fenêtre bu ndaw fofu. le système éducatif sénégalais tout depuis le début jusqu'à la fin c'est du mensonge dara amul luñuy ñuy depuis primaire jusqu'à l'université c'est faux on euh, c'est-à-dire que dañuy jàngal ci histoire jambour la France Louis II la Révolution française tel tel tel alors nous, xamante ñun ça n'a rien d'importance avec ñun suñu vie quotidienne des Sénégalais. alors c'est clair. ba pourtant on nous disait la constitution est la charte. alors c'est clair c'est clair Alpha mais ñun lu ñu au Sénégal ñu c'est mm. diamétralement mm. opposé alors c'est clair euh, allant plus loin nous gis ni ki euh, Juan Branco Ousmane Sonko euh, août c'est-à-dire le 17 août ses chances de vivre étaient à 7 pour cent mu Japonais à un moment donné li avons vu que le taux de glycémie bi yéegoon dem ba daal di tegu li nga xam nekk atteint bi en tout cas mu nekk loo xam ni itam wax na ko moom ki nga xam nekk moo euh, Juan Branco que ni li nga xam Modi euh, en août 2023 euh, li nga xam ses chances de vivre était à 7% malgré tout cela quand même am na ñoo xam ni itam ñiy génn di remettre en question la maladie bu Ousmane Sonko exactement alors aujourd'hui hmm, peut être balaa ñoo daal di jàll si beneen point ak lépp li ñu fi daal di développé lan leen war a concrètement euh, par rapport aujourd'hui à son cas sans qu'il y ait une mère li nga xam que une possibilité euh, pour mu am liberté provisoire qui neen la sortie bu Juan Branco mon est une sortie de xam ne peut-être def étant ko euh, et d'autres le procureur soobu si bien il nga xam que ouverture d'une information judiciaire peut-être pour d'aller di war quelques aspects jëmale si ki n'a xam ne que moo alors en euh, prenant compte peut-être tout ce qui précède qu'est-ce qu'on pourrait tenir et que si la ligne d'arrivée dans les jours à venir inchallah euh, après il nga a nekk ouverture bi nga xam ni itam lancé na ko jëmale si ki nga xam nekk moo di ñiy euh, ki justement le secret médical bu Ousmane Sonko. ci rafet une bi ma am ci rafet njot bu ma am les autorités c'est des humains dinañu libérer Ousmane Sonko si une liberté provisoire ci fan yi di ñeu du yàgg man mala ko mm, mm. Ousmane Sonko sera libéré bientôt te du yàgg man loola parce que dama gis ni même ay militaires buñ démé ba annoncé ni que il est gravement malade. Mm. j'attends à ce que les autorités ñu japp lolu ñu jappé lolu di sérieux moo j'attends à ce que Ousmane Sonko soit libéré dans les jours à venir voilà dans les heures qui vont venir actuellement man maa rafet am. parce que y yi jël na. inquiétante. non il sera libéré Mota manela, il n'est pas trop tard pour bien faire. les autorités il est convaincu. son sera libéré.